yem rek ci sa làmmiñ waaye boo ko wonee di ko yéenee maanaam na nekk sa dund yàlla mi nga gom asamaan ak suuf nga di ko jaamu nga soppa ko nga di taxawu kaadoom nga di def lépp lim loolu moo di ngom leenaan ci suñu àdduna si comme ni ma ko waxee ca njëlbeen yeneen ñaari yëf yu àndul ak ngóom di jéem a góom nga am xel ñaar di weeje seetlu ah ndax noonu laam du noonu mbaate xaaral ma seet ndax yàlla dina ko mun a defal mbaate ma seet ndax góor gi dina ma ko mën a defal ah ah loolu warut a fekk góom yàlla foofa boo góomee rek góom nga doo góom di am xel ñaar doo góom ne xaar naa yàlla yàlla defaluma ko naa uti beneen pexe loolu boo ko defee rek mooy nga. mujjantal ga mooy itam gestu comme ñu bari ñu ñu ko def ci biir àdduna si ñu nekk nii bu ñu demee ba jaaxle ñu ne ah yëfi yàlla daal gommatuma ko loolu doy na waar de man dem naa Angleterre gis ko ci béréb boo xam ne bii luñ binda la binda muñ def ci kaw maraaj lañ ci binda moo dee ndax yàlla am na te ci suuf ñu def ñetti tontu benn ñu ne déedéet yàlla amul ñaareel ba ci tontu ñu ne xëj na yàlla am na mujjanteel ga ñu binda waaw yàlla am na man ci suma gis-gis suma yaakaar ñiy binda lu mel noonu mel na ne ci Europe ci Angleterre ak fu di doon nit ñi dañu dem a dem a dem ba doy gomatuñu ñu ngi am xel ñaar ñeneen ñi gom nañu waaye li fa ëpp doole léegi moo di ne ca biir réew tubaab ca biir Europe ca biir Angleterre ñu bare ngi weddi ne yàlla amul te ñun ñi nga xam ne ñoo xam ne yàlla am na te yàlla ñoo defal ñu ngi diisoog moom ñoo war a garal ci kàddu ne dégg moos lii xew ci àdduna moo di ne nit ñi dañ dem ba toog nañ bi jéem a gis lu nekk ay doy waar rek loolu bu a wëlbati seen xel ñu naan déedéet yàlla amul te ni ko taalibe yi ñaane yéesu tey doolil suñu ngoom wax bu mel noonu bu fekkee taalibe yi laaj nañ ko yéesu mel na ni rek ne taalibe yi yaakaar nañ xam nañ góom nañ ne yàlla am na te loolu lañ yaakaar ñaan Yeesu naan yokkal ñu suñu ngóom ci yàlla moo waral tey bu ñu déggee wara wi li ñu war rek moo di ne nañ ñu wone ne góom nañ yàlla am na yàllaan ci àdduna yàllaan ci asamaan waruñu ñu di am xel ñaar ci suñu biir waruñu ñu di weedi léegi man ci suma xalaatu boppa li ma wax moo di ne ku weddi yàlla weddi nga sa bopp léegi boo toogee seetlu yàlla moo binda asamaan ak suuf binda dunda binda nit ki binda rab yi boo ko weedee ne amul kon yow sa boppa loo mun a wàcc sa mbir sa mbindeef nañ la ñu ñaan tey ci dimaasu yàlla ji ni ñu ko déggee ci kaadu mu doon loo xam ne lii lu set la lu óor la ñun goom yàlla yi bu ñu ñaan rek ni taalibe yi yokkal suñu ngëm waaye ñu toppa fulal kaddu yeesu bi ne bu fekkee ne am nañ ngëm gu néew lu mu tuuti tuuti dinañu mën a def lu rëy ak ngëm googu noonu te pour tëj rek gëm leen te di ngeen gis lu bari loo xam ne yàlla dina leen ko defal nañu yàlla sama may ñu ngëm nañu yàlla sama may ñu li nga xam ne moo di ngoom gu dul yox yi bati ngom gi nga xam ne duñ ko nekk di weje ci suñu dund ñu yàlla barkeel te taxaw te may ñu jàmma may ñu piix defal ñu li gën ci suñu réew mi Gambia ndegem réew mi rek lañ fi am yàlla indi fi naataange yàlla indi fi muñalante yàlla indi fi loo xam ne lii kenn du xaañ kenn dara kenn du sonal kenn waaye ku nekk di taxawu moromam réew mi gën a neex jaam ak yéen fay yàgga te réew mi nekk réewum yàlla yal na yàlla barkeel Gambia bi te barkeel ñu ñun ñëpp. Thank you Elaine Ndour and Father Edu Gomez. Let us take their words to heart because they are the word of the Lord, Kadu Dunjiji. Now that's all for this Sunday. I hope you've enjoyed our program. I hope you enjoyed the whole day so far, and the rest of it will be pretty good. I'm thinking when I say what am I going to pray about in the next few days, are uh, those people who have been toiling in the fields. Some of the harvests of some of the crops is just beginning to come in. the beginning of the harvest of this and that crop. Let's pray that our farmers may have received a good harvest this year and pray that God will be with them and that we'll help them to harvest until the year of planting and harvesting is done. And of course, peace. Peace in our own hearts, peace in our families. That's so important. And peace in those places where there's doubt about what's going to happen. Places like Central African Republic and Syria and, oh, there are too many places to mention. But if you listen to the radio, if you watch television, you know what you should be praying for in the name of your faith, whatever it may be. Peace and love. We in the Gambia know the meaning of those Let's hope that many other people come to know what they mean. Thank you again and have a very happy Sunday. We look forward to welcoming you in one week's time, 1 o'clock, GRTS, Kado Dunjaji. Goodbye.